تسنيم أونلاين مولن دي كور الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بقي السلام عليكم ورحمة الله نيلن دي نيو دي لن زيار دي لن دوكي ألتي كور جدي نعني يالا منانغول ني نانغول لن نيجي دل سواتي جتايو كور يني بوكو دي أمتي نغونو كور جوجوت دي تي وقتاني أي حديث وخمني حديث ماغلا نيو تخلقو جلكو تيرانتو عليه الصلاة suñu xadisu tey abu idris al xawlaani moo ko solo jële ko ci abu dar al xifaari abu abu idris al xawlaani turam mooy aid ibnu abdillah mi ngi judd ci jamono yonente bi alayhi salatu wasalaam ci nee nañ ci jamono xew-xew boobu di xunayn muy maarakatu xunayn bi yàlla wax ni wa yowma xunaynin id ajabatkum kasratukum ci xew-xew boobu ci jamono jooju la judd kon ci njeexitalu dund yonante bi alayhi salatu la judd motax tax kenn du ko bolé ci sahaba yi limu solo yépp ci xam-xam mi ngi ko jànge ci sahaba yi ci magi sahaba yi radiyallahu anhum mu jël hadith bi ci abu dhar al ghifari abu dhar wax ne yonante bi alayhi salatu wasalam dafa wax ne قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا yaa cibaadi kullukum dallun illa man hadaytu fastahduuni ahdikum yaa cibaadi kullukum jaa'icun illa man atcamtuhu fastatcimuuni utcimkum yaa cibaadi kullukum caarin illa man kasawtu fastaksuuni aksukum mu continuer noonu topp ko ba xadis ba àgg dañ ciy jël tuuti ñu jàng ko ci suñu jataay bi li ci des ñu àggale ko ci beneen jataay ndax hadith bu gudd la di xadis bu màgg boo xam ne alimaam muslim moo ko solo ñi ko nettali abu idris al xawlaani bu ko musaana nettali day sukk ci suuf jonkan ci suuf dootul mën a di taxaw dootul mën a téye boppam ndax hadith bi ni maana bi màggee mu xadis qudsi bu màgg di xadis bu wér nekk ci saxiixu alimaam muslim ci téere bu màgg boobu abu dhar dafa nettali ne yonante bi alayhi salatu dafa nettali benn xadis jële ko ci borom bi subhanahu wa taala muy xadisu qudsi yàlla subhanahu wa taala di ci wax ne yéen sama jaam ñi moo tax loolu day gën a firndeel ne xadisu qudsi waxu suñu borom la bu mu wax yonent bi alayhi salatu salaam te boolew ko ci alquran mu nettali ko jële ko ci yàlla ndax boo xoolee wax ji ni muy tëddee da ngay xam ne du waxu yonent bi alayhi salatu salaam waxu yàlla ju muy nettali la ndax yàlla moo wax ne yéen sama jaam ñi yonent bi alayhi salatu salaam nettali ko yéen sama jaam ñi yaa ibaadi mu woo ñu ci turu jaam ndax loolu rek moo nekk suñu diggante ak moom nekkuñu leneen lu dul jaamam moo tax yàlla subhanahu wa taala ne in kullu man fi samawati wal ard illa aati rrahman abada amul kenn koo xam ne nekk na ci asamaan wala ci suuf lu dul ne buy dikkal yàlla dina ko dikk nekk abdan nekk ab jaam illa aati rrahmani abdan buy dikkal yàlla daf koy dikkal mu nekk jaam waaye mu jëfandikoo baatu rahmaan bi dalal xel itam ci ne naam ay jaamam lañ naam mooy suñu borom waaye yërmande rek ci lay jëflante ak ñun comme niñ ko waxe woon ci arrahmaanu ala arshi stawa tiim gum ñu tit tiim ak not gim ñu not ci côté yépp ndar ñu képp wa id qulna laka inna rabbaka ahata binnas not not not gim ñu not wa huwa alqahiru fawqa ibadihi not gim ñu not subhanahu wa ta'ala tiim ñu bu fekkonte ni ci kaw mbugal ñu la tegu kon duñ ko mën a rëcc waaye bi muy jëfandikoo bi muy wax ci nooteel googu ak tiim googu ak ndar képp gim ñu ndar képp ci màggaayam baatu raxmaan la jëfandikoo ngir dalalee ko suñuy xel waaye bu ñu koy dikkal di nekk ay jaam itam nga xam ne mënaluñ suñu bopp dara fa moom lu ko neex ci ñun mën na koo def te duñ ci mën dara daf ne bu ñu koy dikkal mu jëfandikoo melokaanu raxmaan muy melokaanu yërmande kon yàlla subhaanahu wa taala ay jaamam lañ nañ ko nangoo nekkal jàmm ndax mu neex ñu mu naqari lañ jaamam lañ njaameel gu ñu nangu ak njaameel gu ñu nanguwul ndax walahu aslama man fi samawati wal ardi tawan wa karahan wa ilayhi yurjaun yàlla la jébbalul yàlla la nangul yàlla la nekkal jàmm képp ku nekk ci asamaan ak suuf mu neex ko ak mu naqari ko jaamu yàlla nga ndax loolu mooy li nit ki doon ci jaamu gi mu nekk jaamu yàlla yàlla sàkk ko moom ko di def ci moom lu ko neex te mënu ci dara waaye nag bu dee moom nanguwut a nekk jaam bi nga xam ne jaam ak coobarewu la bu boobaa itam jaam googu mu ne donte sañu ko bañ du ko jariñ dara moo tax kon bu waxee ne yaa ibaadi yéen sama jaam ñi dañ ciy déggee ne ñépp lay waxal ci wax jii nii lu muy adressé humanité bi yépp la jaam ñépp ñoom ñoo ci dugg waaye ki ciy jariñu dëgg mooy jaam bi nangu njaameel gi ci digganteem ak boromam ndax kooku mooy déglu boromam subhaanahu wa taala kooku mooy jariñu ci li yàlla di wax ak ci li yàlla di wàcce ci yonentam bi alayhi salaatu mu daal di wax ne inni xarantu zulma ala nafsi mu ne moom subhaanahu dafa weesale boppam tooñ mooy taqaddasa an zulm yëkkati no yëkkatiku na subhaanahu wa ba weesu lépp loo xam ne tooñ la ndax matam gi mu mat ci ay melokaanam mat ko ci jëmmam mat ko ci ay jëfam lépp loo xamante ni ak doyo di la lépp loo xam ne ak suufe la ci ay xeeti melokaan ak jëf yàlla sori na ko subhanahu wa taala ndax moom mooy ki nga xamante ni mooy ki melowoo melokaanu mat walahul mathalul aala mooy ki melowoo melokaanu mat ci fànn yépp ci côté yépp subhanahu wa taala kon bu yëkkatikoo sell ci lépp lu ñuy jàppee tooñ te mu nekk tooñ xaqan bokkul ak loo xam ne loo nit ki foog la wala jugement boo xam ne bu erroné la mooy nit ñi léeg-léeg li ñuy foog ci ne lu tax yàlla def lii mel ne mooy waay àtte yàlla te lépp ci seen rationalité lañ koy dugal ci seen yi ñoom propre logique gu doomu aadama logique gu doomu aadama bi nga xam ne mbindeef la àggul ci dimension jegewul sax lu jëm ci mbiru yàlla bu jëlee logique am ne daf koy àttee yàlla ci wedd yàlla la jëm te loolu moo am ci jamono yu mujj yi li philosophes yi jàngal occidentaux yi tasaare ko ci occident ñu tabax ci seen sibilisation bu moderne bi mooy li ñu tuddee la primauté de l'homme mooy jël doomu aadama def ko mooy dañ koo def comme yàlla dañoo ya dañoo niteel yàlla yàllal nit ñi loolu loolu la kenn ci ñoom wax mooy dañuy jëflanteeg yàlla comme bu doon nit la di wax ci ay mbiram comme bu doon doomu aadama la di ko àtte comme ni ñu àtte nit ñi dugal ko ci suñuy logique ci suñuy rationalité ci suñu wàllu loi ak suñu suñuy bëgg-bëgg ak suñuy mel noonu lu ci nekk ñu jàpp ne yàlla daf ñu cee war a fekk si ñun solo nañ ko bëggee doxalee ko noonu doomu aadama bi nag ñu jox ko sañ-sañ boo xam ne ci ay libertéem ak ci ay xalaatam ci lépp lu mu sañ wala mu gis ko ci xelam rek mën na cee sukkandiku wéy ci dundam nga xam koo xamante ne être supérieur la bu ko yilif di teg ci kawam ay loi yoo xam ne moom lay topp ñu dindi loolu ci moom daal di koy tekkil buum yooyu firi ko ne ko demal waaye jamono jooju lañ ko def jaam dëgg dëgg dëgg jamono jooju lañ takk buum ci baatam jox ko seytaane seytaane di ko naxee ci gëmloo gi mu koy gëmloo ne ko libre nga yaa moom sa bopp fekk ne def na ko jaam bu yàgg lim la jox comme semblant liberté loolu du liberté loolu lu mu lay naxee pour doyo dalee la ko loolu lu muy naxee nit ki la pour doyodalee ko ko ndax nit koo xamante ni dafa ñëw fekk doomu aadama boo xamante ni yor na alal joo xam ne mën na koo jariñoo mu jël ko ne ko kay yow fi nga nekk ni nekk fi di lijjanti ay yi dalay sonal kay nga dem daal di koy jël yóbbu ko jël ay caaxaan jox ko ne ko demal nga fo demal nga féexal sa xol ci caaxaan yi kooko nekk ci loolu di fo ak caaxaan caaxaan boo xam ne amalu ko benn njariñ ko yoxosu ko jël njariñam loolu di ko jariñoo léegi ndax loolu ma ko jox noonu pour occuper ko ko pour occuper ko pour distraire ko ba mën koo nax yoxosu ko est-ce que loolu mën nañ ko tuddee liberté wala ay nax la seytaane noonu lay def doomu aadama li mu koy wan ci kaw di ko tuddee semblant liberté piège la bu mu koy piéger ci ay bànneexam ci instinct animalam bi nga xam ne lu mu koy gën a dominer melokaanu bàyyi ma di gën a féete kaw ci moom melokaanu nit ak doomu aadama di gën a suufe di fay li nga xam ne mooy faculté de discernement et de réflexion bi nekk ci moom te yàlla jox ko ci xalaat bi mu waroon di xalaat di settantal ay mbiram ba nax yi ko seytaane di nax bañ a nekk lu yomb loolu day gën di fay ci moom lu côté gi nga xam ne mooy côté bëgg-bëgg ak bànneexu bakkan bi di gën a am ci nit ki doole rek seytaane di gën a am ci moom emprise di ko gën a jékku moo tax kon nit ki bu comprendreul loolu ci civilisation moderne bu matérialiste bii ñu jëlee Occident du comprendre nax yi ci nekk dëgg-dëgg ci kaw ak neexaay bi muy nuróol di ko di ko nuróol ci kaw te yàlla waxoon la ne loolu yépp benn mirage la booy seen de loin yaakaar ne ndox la boo fa àggee xam ne du ndox mooy façade la mais ci biir mbugal moo fa nekk moo tax yàlla ne walladina kafaru amaluhum kasarabin biqiya يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه موي ne boko sene ci désert bi muy lerex lerex da yaakaar ndox la mirage bi dangay yaakaar ndox la ngay waaxu di daw ak sa mar di daw ba ne ci sarax boo ñëwee fekk ne désert boo ko nga fay fekk yàlla nee na seeni jëf ñu weddi yàlla noonu la mel seytaane dala koy taaral ci kaw pour fiiree la ko pour naxee la ko moo tax kon bu fekkente ni xoolaat nañ njaameel googu yàlla ñu nekkal yàlla li gën ci jaam bi mooy mu nangu ko nangoo nekkal yàlla jàmm ndax loolu rek ci la yëkkati mu nekk loolu ci la njariñam nekk képp ku yàlla yëkkati ci dëggal loolu sa digganteeg sa borom góor goo ci góorgóorlu ci la yàlla yëkkati nit yàlla yàlla yàlla yàlla lu jigu ko nit ku yàlla yàlla yàlla lu yàlla toroxal ko te balaa ñu ci xam dara yow man xiyam ñu ñëw taxaw ci kanamu jàmm ba yàlla taxañ suuf si téye ko lem asamaan yi téye ko ne man maay buur ana ñu doon buur buur lu ci àdduna man may ngand ana ñu doon ngand ngand lu ci aduna yakarna na fofu kenn du saqat ndax la yatakallamuna illa man adina lahu arrahman wa qala sawaba duñu wax ludul ku yalla jox ndigal ne la waxal te li ngay wax dang koy xolaat bu baax ba tek ko ci yoon du lu la neex wax kon bis bobu bisu njaqare la bisu toroxtaange la loolu nag dox suñu digganteeg suñu borom nañ ko xam fii ci aduna nangu ko bala muy wess kon yéen sama jaam ñi lañu yàlla wax dal daldi ci tek ne mom jombale na bopam sel na mom yàlla ci di def luy luy nek togn def li nga xamne moy nek togn mom yàlla sel na ci ndax at tahrimu huwa al manu enam fa imtinaau shay an shay man nga ko tuddé tahrim mbir bu mënta mel nàngam mën nga wax ne loolu araam na ci moom mooy mënta nekk loolu lañ koy tekkee lu mënta nekk ci dara mën nañ ko tuddee ne lii dafa araam ci nàngam baatu araam li muy tekki mooy loo xam ne lu ñu fekk la kon fekk gi ñuy fegal yàlla loolu nga xam ne mënuta melowoo melokaan googu mënu ko melowoo mooy du ko melowoo ndax loolu méngoowul ak jëmmam méngoowul ak màggam ndax yàlla kenn du jëfandikoo baatu mënta dañ naan du ko def te loolu mooy dugg ci lenn li ñenn di wax ci yenn piège yi naan bu yàlla ne inna allaha ala kulli shay'in qadir yàlla am na kàttan ci lu nekk léegi ndax yàlla mën naa sàkk ku mel ne moom ndax xam nañ ni moom ahad kenn la ci màggaayam amul lenn lu mën a mel ne moom léegi yàlla kon dañ bëgg a wax ne ci loolu ci niñ koy waxee ci ñenn ñi te loolu ci philosophie lañ ko jëlee kon yàlla lott na ci mën a sàkk ku mel ne moom waaye loolu ay waxi kasaw kasaw la ndax yàlla buy def lu jaadu rek lay def booy askanale yàlla danga koy askanale jëf ju jaadu jëf ju war a mën a nekk ba noppi bu loolu nekkee lu jaadu nag ba pare nga xool ba xam yàlla mën na ko wala mënu ko mën gi mooy li dellu ci coobareem ndax faalun lima yurid fi'lullahi yataallaqu bi iradatihi wa iradatullahi mabniyatun ala xikmatihi jëfu yàlla day dellu ci coobareem li mu coobare woo def coobare yàlla nag ci li mu taxaw mooy xikmaam di ak xereñam di sagesse bi nekk ci yàlla yàlla kon lu xereñ rek lay def mooy loo xam lu yàlla la lu war a am la jamono ji warta am te munta am jeneen yàlla jurul yàlla ji fi nekk ba ngay wax waxi amal keneen ku dul yàlla loolu la ñu tuddee as shay'ul mumtani li dhatihi moom loo tax ak dalil boobu yàlla waxoon dalilu tamaanoo la bi mu waxee ne law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata loolu kon mooy ne aduna ji bu fi yeneen yàlla nekkoon judul yàlla mi nga xam ne moo ko amal kon aduna bi dina yàqu ndax kii day bëgg a def lii kii ne day def la bu ko defee loolu li muy indi mooy déséquilibre ak jaxasoo ci aduna bi mbiru aduna bi yàqu ak li mu waxoon ne qul law kaana maahu alihatun kama yaquluna idan labtagaw ila dil arshi sabila bu fekkonte ni am na yeneen yàlla yoo xamante ni ñi ngi fi di ànd ak yàlla di àtte ak a def comme ni yàlla di defee kon ñooñu dinañ am mën-mën ci yàlla dinañ am mën-mën ci yàlla moo tax borom xam-xam yi wax nañ bu fi ñaar yàlla nekkoon imma ñoom ñaar ñu tolloo kàttan tolloo doole kon kenn ci ñoom du nekk yàlla dëgg-dëgg ndax yàlla dëgg-dëgg ku supérieur lay doon koo xam ne mooy féete kaw ñépp ci ay mën-mënam ci ak ay bëgg-bëggam beneen bi ci des mooy ñoom ñaar bu boobaa dañuy bloquente ndax kenn ci ñoom dominé wul ka ca des bu kii waxee lii ka ca des mën na ko contredire loolu indi problème ci àdduna bi àdduna bi yàqu mooy li yàlla wax ne la fasadata asamaan ak suuf dina yàqu kon bu fekkoon yeneen yàlla ñu ngi fi bu fekkente ni nag yàlla moom moo fi nekk moom képp koo xam ne mooy dogal lu ko soob subhaanahu wa taala ñi ci des nekk ñépp nekk ay jaamam loolu moo indi tekkaaral gi àdduna bi tekk tekkaaral ak ni mu amee stabilité ak bi nga xam ne ci lay dox ndax kenn gi nga xam ne jenn yàlla ji nga xam ne moo fi nekk moom moo koy doxal ci coobareem subhaanahu wa kon bu waxee loolu moom yàlla subhaanahu wa taala ne wa jaaltuhu bayni bay daf na wax ne xaramtu zulma ala nafsi teg ci ne wa jaaltuhu baynakum muharraman bi mu ko waxee ci boppam ne moom subhaanahu wa lu mu dul def la sori na ci màggaayam ci di def tooñ ginnaaw bi mu ne tooñ googu nag yàlla subhaanahu wa taala ci ñaaw gi mu ñaaw moo tax yàlla di koy araamal ci seen diggante wa jaaltuhu baynakum muharraman def na ko ci seen diggante mu nekk lu aram bu wax ji yemoon foofu rek jëmmi tooñ day nekk lu xaram ci ne nit war na moytandiku lépp loo xam ne tooñ la ci digganteem ak ay moroomam ndax yonente bi alayhi salatu wasallam daf doon wax naan iyaakum wa dulma fa inna dulma zulumatun yawma alqiyama moytandiku leen tooñ ndax tooñ ay lëndëm lëndëm lay waralal boroom yawma alqiyama te waxoon na ne ittaqi daawata almadlum fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab mooy tëndikul ñaanu ku ñu tooñ ndax amul lenn luy dox digganteem ak nangu ki ko yàlla di nangu même bu fekkee ki ñu tooñ nekkul ku gëm yàlla moo tax tooñ dafa jar dafa jara mooy tëndiku dafa jara ragal mu daal di ciy teg ne fala tazaalamu kon bu leen tooñante loolu nekk luy feddali araamal gi mu araamal tooñ ci suñu diggante mu nekk ci ay anam yu bari yenn tooñ yi ci wàllu wax la te loolu bari lool li ci ëpp ci làmmiñ bi nit ki di jël di ko teg ci ay nit di wax ci ñoom di wax ci seen der di wax ci seen alal di wax ci seen diine di wax ci seen njaboot wax joo xam ne teguwul ci dëgg teguwul ci maandute teguwul ci xam-xam wala sax waru koo wax rek mu nekk ay tooñ yoo xam ne ci li mën a indi gën indi nit ki gàllankoor yomal xiyaam bokk na ci beneen bi ci des mooy ci loxo ci dóor nit jël alalu nit jaay nit doole ak yu ci jëm لولو يرنت بي عليه الصلاة والسلام فد لكو تحدثوا أتدرون من المفلس حديث عبد الله بن عباس بي يرنت بي عليه الصلاة والسلام توغي الصحابة يبم ياغ من يلن دخ خم جين كي پرت دخ كم جين خم جين كي فايت نينكو أ خنا من لا دينار له من لا درهم له ولا متاع موي خنا كو خمنتني دا فا ديمون خينا سي مارشي بي داخ دنج ياكار لول لا لين دي لاج دون كوميرس perte alal ja ak marchandise ba lépp dem mu ne leen déedéet ki perte mooy kiy ñëw yoman xiyam indi ay yiw ak ay yool yu màgg màgg ba toll ne ay montagne waaye def na ci ay tooñ loo xam ne du ko jariñoo ndax dóor na kële saaga na kële jël na alalu kële bu ko defee ñu jël ci ay yiwam di ko fayee nit ñi jël ci ay yiwam di ko fayee nit ñi ba amatul ay yiw wu mu fayee ku mu amelatil àq ñu jël ci bàkkaari kooku di ko ko sëf mu dem ba fees dell ak ay bàkkaar suñu borom ne womat leen ko ngeen yóbbu ko safara nasalullah salaamata wal afiya loolu kenn ku nekk war na koo moytandiku te am na ci xeetu tooñ yu lën yu yu yu làqatu yu nëbbatu yoo xam ne léeg-léeg seytaane dina ci laxas nit ki du ci bàyyi xel te du dara taxul mu ko ci nuur lu dul ngir yàqal ko diineem ndax gis na ko muy góor góorlu ci lu baax am ci benn sawarte ak bi boo xam ne xamul fu mu ko mën a jaar fudul fii bu ko defee mu ñëw tàbbal ko ci fitnay wax ci nit ñi wax ci nit ñi wax joo xamante ni du cëram wax ci nit ñi wax joo xam ne xamu ko wax ci nit ñi wax joo xam ne tegu ko sax ci ragal yàlla ak màndute voilà léegi loolu nag nekk fitna joo xam ne ci li gën a mën a yàq diine nit ci la bokk waaye nit ñi dañ koy def ndax bànneex bi ci nekk dafa am lu tuddee te tachaf fii mooy léeg-léeg yëg-yëg bu nit ki yëg ci xolam boo xam ne am benn besoin pour wax ci nit besoin bobu nak la ñen ni leg leg di satisfaire fu ñu tollu di nek di wax ci nit ñi duñ ci sax xol leg leg deug deug ndax li ñi wax deug deug xàqan non la amé wala déet déformation yu bari changer ay mbir yu bari ba leg leg ka bax ci concerné bu ko bu ci foré dara sax dégg ci dara sax àddunaam day bëgg tukki day tit ndax day xamné il faut que leg leg nit ki ñaka a deug pour wax ci mom yenn wax yi te leg leg wax ji ci ay rumeur lay tambalé wala léeg-léeg ci koo xam ne am naa kooku problème di def ay réglement de compte mooy dem waxal ko ay wax yu ñaaw ndax nenn ci nit ñi seen matadi àgg na ci ne buñ amee nit problème pour ñoom yëkkati seen bopp ak layal seen bopp niñ koy defee mooy dem jiitu ko ci nit ñi di yàq deram pour jàpp ne ñoom loolu mooy defar seen der mais loolu faiblesse la ndax doomu aadama boo xamante ni bii ku tranquille la ci conscience am ci ne li mu war a def def na ko amul lu muy reprocher boppam kooku soxlawul di yàq deru nit pour mën a setal deram ci nit ñi kooku day bàyyi rek ak yàlla soxlawul di dem fenn di wax ak a lay ak a miim ak a tuumaalaate ngir ne dafay setal deram moo tax kon nit ki war na yar boppam bu baax a baax ci loolu te mu nekk loo xam ne tey fitna ci jamono ji la ak réseau sociaux yi nga xam ni nit ñi dañuy bind di wax ci nit lu leen neex da ngay gis ku ñëw jël ay secret jàmbur yóbbu ko ci internet bi ne fa di wax lu ko neex nga gis ku ñëw commentaire wax ci lu ko lu wax ci wax yu ñaaw a ñaaw te ka muy wax ci moom sax xamu ko ka muy wax ci moom sax xamu ko léegi léeg ci ay tuuma lay teg léeg-léeg ci ay règlement de compte même bu doon dëgg la sax nekkul lu ñu war a wax li ci ëpp même bu doon dëgg ndax alxibatu dikruka axaaka bi maa yëkkara jëw yonent bi alayhi salaatu wa daf ne woon mooy ngay wax ci sa mbokku jullit loo xam ne bëggu ko ñu ne ko ndax bu fekkee li li ñuy wax dëgg la mu ne bu dee li ngay wax dëgg la jëw la bu dee du dëgg yaa ngi koy sosal léeg-léeg nit ñi nag duñu ràññatle loolu ci wax yooyu nga xamante ni bi lu ci bari léeg-léeg du tegu ci loo xamante ni dëgg la te bu nekkoon dëgg sax léeg-léeg waxin bañ koy waxee ak nañ koy nekkee di ngawte ngawtee ci ay réseaux sociaux ku ne di bind di wax loolu jaaduwul léeg-léeg nga gis koo xam ne nit kuy wax waxam la la wax sax concerné wu ko mu dugg ca bind ca saaga ko wax ko lu bon wax lu ko wax lu ko neex dem yoonam pour rek juste def lu ko neex noonu wala xëy na nit ki neexu ko jàpp na ni li muy wax neexu ko wala mook moom bokkuñu fañ bokk bokkuñu luñ gëm dugg noonu rek saaga ko dem yoonam benn saaga boobu rek nit ki saaga nit tooñ ko ko mën na ko indil ay jafe-jafe la yawmal qiyaam doomu aadama bu ragal yàlla dafay moytandiku tooñ te léeg-léeg yooyu nga xamante ne day tas ci nit ki ñu bari ci nit ñi duñ def li yàlla santaane ne yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqun bi nabain fatabayanu an tusibu qawman bi jahalatin fatusbihu ala ma faaltum nadimin yen ñi gëm yàlla bu leen nit koo xam ne xamoo leen maandu teem te jamono ji mandu jafe na lool yonent bi alayhi salatu wasalam nee na mandu ci mujj jamono dañ koy wër di ko jeex ci nit ñi mandu lu jafe la ci jamono ji nit ñu bari li ñuy wax seen bànneex bakkan nañ ci jiital nit koo xamul mandu tem bu la dikkalee ak xibaar wax la ko na nga ci tey nga gëstu ko balaa ngay jóg di jël ay taxawaay ci nit tooñ ko ba ëllëg nga ciy mujj di ko réccu réccu gi mooy fa asbaxtum ala ma faaltum di mooy dem ba xam ne nit ki li mu defoon ndakate dañ ko trompé woon dañ ko manipuler woon ndakate ci ay rumeur la sukkandiku woon mujj di jé di jéggaloo ko réccu balaa nit ki di tàbbi ci loolu mu tey ali ibn abi taalib radiallahu anhu bi ko yonent bi alayhi salatu wasalam di yebal yaman daf ne ko boo demee da ngay war di àtte ci nit ñi waaye bu la ay nit dikkalee di la kalaamee di la wax ay mbir balaa nga cee wax dara wala nga ciy def déglul ñaari parti yépp kenn ku ne nga déglu ko ba mu exposé ay argument wax la mbir mi ne mu demee nga soog a mën ci am lu la leer bu ko defee di nga mën a àtte seen diggante ali radiallahu anhu nee na bi ma jëfee loolu benn problème buñ ma exposé ma war ko àtte ma luñ ma indil rek su ma ko dégloo su ma ci xalaatee bu baax dinaa xam nan laa koy doxalee nan laa ci àdde waaye déglu kenn léeg-léeg sax ka ngay déglu sa waay la nga daal di koy merle jug jàkk jàpp ne war nga koo jàppale commencé di wax loolu ku ragal yàlla ku màndu du ko def ndax léeg-léeg ñi ci faral di bari wax noonu ak a wax wax ju bari li ci bari du ñu nekk nit ñoo xam ni fa seeni wax àgg seeni jikko àgg na fa loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax a baax yonente bi alayhi salaam dafa wax ne innakum taxtasimuna ilayya ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض دا نين دي نييو سي مان دي اتيلو سي سيني بروبليم واي امنا سي يين نيو غنا بري واخ غنا مانا ديفاندر سيني حق كنيا تي ديس امنا سي كو خامني واخام خينا بري وول مونتا ليرال بن خيتو ليرالين بي ولا جارالوكو legi bu ko defee ka borom wax ju bari je waxa waxa waxa wax ba atteloo ma ma jox ko dëgg waaye nee na ku ma ci jox dëgg goo xamante ni yellowuloo ko xamal ne dog la ci safara dogu safara laa la jox mooy safara lay jural nit ki ëllëg yowmal qiyaam moo tax kon mbiru tooñ mi ngi noonu nañ ko moytandiku bu baax moytandiku deru nit ñi nga xam ne seytaane yombalal nañu loolu ñu ciy wax nañu moytandiku alalu jàmbur nañu moytandiku yaramu jàmbur wala bakkanu jàmbur wala lépp loo xam ne suñu loxo da cay dugg ndax al muslimu man salima al muslimuna min lisaanihi wa yadihi jullit bu lislaamam rafet mooy jullit boo xam ne jullit ñi mucc nañ ci làmmiñam ak ci loxom yàlla nañ yàlla defal tawfiq هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تسنيم أونلاين مولن دون ماي جوتايو كور membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sipooram ñu ngi leen di nuyu nuyoob lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir Sénégal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bii nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawee liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi buntu yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membram ci ay cotisation yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western Union dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam